waaw maa ngi di fay waa presse bi yëpp di nuyu waa Yoff di wax na lii neex na kontaan naa ñëw naa Yoff ñu accueillir ma xam nga dégg naa may nuyu champion yi mu fekk muy Malick Niang mu dalal ñu ak champion rek rek ak ñoom moo ja champion Yoff yëpp di wax ne kontaan naa lii lamb moo ciy gagné mais c'est normal parce que lii hmm, waa journal muy journal ñu lamb tey kep kuy mbër amon gelen djugal euh, ñom li la ñu am seen bes la ñu am tey nañu taxaw ci seen bes alhamdulilah rabbil alamin mais nga gisee initiative bi mooy suñu lamb dor ñu gis suñu lamb tey tey ñu ko écurie Yoff écurie dor Dóoraat la ko commencé woon tey mu jox écurie Yoff. waaw mais sant la na ku liggéey yaay feyu maa ngi leen ñaan à prochaine sama na ko gagné nañ ma jox ñoom la wax ñaan quoi. yee yee nice na nice na sant yàlla la macha allah am na solo. Hmm? non doon nañ dox sama combat si ginnaaw mais léegi moom wax dëgg yàlla dans vingt jours nii ba léegi quoi. mbër ñu gis ni yow yaa gën a rafle adversaire. ndax non suñ xaaral ma ba pare suñ naan rafle adversaire mooy gis na depuis daaw Tapha Tine di nga gis ay na wala la wala ci adversaire xam nga lamb moom mooy déroulé noonu xam nga ñu métier la xam nga mbër yi nag xamante nañ kenn ku ne xam nga kan mooy kan. mais Tapha Tine pour man xëy na naqaruwul la utal adversaire xëy na ci yeneen mbër yi la. mais tout le temps damay pare pour bëree xam nga ni làmb ñaar nit moo koy def du kenn nit moo koy def. waaw tey man bu ma pare woon ne pare naa pour bëri te beneen mbër bi pare wut it lamb du sotti donc ñaar ñëpp dañuy joxe seen accord xam nga boobaak léegi nag mën naa ne man la ay promoteur ëpp lu ñu seet si mais ba léegi sama combat taxawul geste xaw ma qu'est-ce qu'il a newul ci mën nag ci mbër la mais lépp dañ koy sant yàlla te xam ne lu warul am la amagul surtout est-ce que am nga yaakaar ren di nga mais saison bi damagul fenn saison bi damagul sax deux mois waaw mais lamb noonu lay demee lamb fii ba ci kanam xam ne affaire yaa ngi suñu kanam daal yal na yàlla leeral yëpp waaw ay combat la lépp neex yëpp a neex. Taphatine Reug Reug. a neex. yëpp combat la yëpp a neex léppay combat. mooy li ma lay wax rek man du ma daw du ma daw combat quoi wax dëgg yàlla. ku ñu seeti rek bu jaadoo man damay seet vraiment. tubaabu joor Taphatine yaa ma dégg suñu mbokk la suñu lépp la. déggatuñu Tapha Tine ci li nga xamante ni mooy groupe boobu mu bokkoon lu waral loolu. waaw lool lool loolu sa ay wax la say wax la mais ñoom duñu ko wax xam nañu kan mooy Tapha Tine. man grand contre petit bi noo ko gis grand contre petit moom xam nga loolu dafa ma a am xëy na day gan ci gaay rek mais man fa ma toll bi may daan su ay grand xam nga man la woon demee. mais grand contour poti moom dafa mos am xam nga da ngay tullu niveau boo xam ne da ngay a dem ci kaw lan moo la koy may nga attaqué say mag ñeme leen affronté leen man dama fa jaar keneen ak keneen jaar fa te affaire yi noonu la ko euh, euh, mbër ñu xam ni bokk nga ci mbër yi nga xam ne ñoo ëpp ay maanaam ñu ñu ameel bor boo xamante ne ji. dégguma dégguma bokk nga ci mbër yi nga xam ne maanaam am nga ñoo xamante ni ji say say ñoo amal revanche la bari nañ ci léegi si ñooñu ba léegi est yaakaar ne instant bi moo taxaw pour jox la revanche boobu pour delloo la revanche boobu à part amaam yi nga xam ne lamb combat taxaw non pour bañ a tudd tur man moom sumay interview comme na may wax moom du ma cité tout le temps damay pare pour bëre tout le temps damay pare pour bëre athlète la toujours damay damay pare mbër bu ñëw ku ñu yaakaar na logique na pour bëre ak Taphatine Taphatine pare na pour bëre ak yow. léegi nga bokk nga ci euh, euh, mbër yi nga xam ne ñoom la ëpp lu ñu seet contact yi léegi si seet boobu ñu seet si euh, maanaam yi fan la nekk ci cachet yi la wala ci sponsor yi. non du problème mu casting exemple dinaa déggoog promoteur bi mais ci mbër yi la daal comme ni ñu koy waxee. ragal non du ragal am lu ñuy xaar pare guñu rek mais du question ragal wala leneen. mais mbër mu am loo xamante ni mooy père Douriaykat yi génn àdduna mu nekk monument nekk li xamante ni tey tafaatin bu doon bëree da koy sentir def leen tey génnum àdduna nan la def ci yow. waaw dañ koy ñaanal yàlla rek Douriaykat yi moom képp kuy mbër bu mag gu ne xam sargal na la sigil la ci lam muy man muy maa ngi koy wax bu yàggul am na woy bu muy woy ñaari doomu ndey xaw ma lan ak lan boole na leen yaakaar naa loolu yuuxul na ko bépp sampion kon yal na ko yàlla yaram xere ko aljana bi jaay Seydina Mohamed